Birama eh, Saar Njaay ndeysaan yow ya defal nii ah say son alaaji ni ko wëñ ngay alaaji wuti ko wuti ron wuti ron waya yo ya ah ah da nga lay ay pal ba ñaf na ma sib sanar ay dajul mooy raata dooge gi wallahi bi mooy ne ko ko dara fo mali bi Derefo men. Moi le pôle xamse football eh, ak kula supportalo. Tu vois est-ce que tu as la saboure mo waxe ki. Le pôle Lu so yoon sunu équipe. Ay o gaani soogi, wor soogi. Li Mali, ah! li Mali la. Li ni Mali la laal bëgg wa. Yow yow yow yab Sénégal yi. Ah lan fii la étoile bii ne. Fii lay Nga jël sa yi dugal ci Sénégal. Waaw xaaral fii lii la nga fay la trop. étoile bi fan la nekk rek wax ma fu mu nekk ñun tàlluñu la ñun. mu ne fenn. tàlluñu la de waaw étoile bi fii la ne. Ah. waaw étoile foo ko munti def yow fii verte kese la. baal di wax man di ma dendale ay saaga. baal di wax ak man di ma dendale ay saaga. ah la ñaf sim sànnaar de. ah ah feneen El Hadj. waaw. kon ah feneen. ah jërëjëf waaw fenn waaw. négal ba mën ko wax ah feneen. ay ah, yow ah feneen la ñuy wax. xaw ma lu mu munti doon daal wax naa la ko. comprendre attention à moi fais attention. waay yow على نفسي مسانار هاي درا واتاكم يو دوم من لو مدر برك الرسول الله يعلم يا حليل سيدي هاي درا آه. وابناكم هاي آه، درا آه، وابناكم هاي درا وابناكم هاي اخاف بالبلا جفرو هاي درا وابناكم هاي درا وابناكم دوم تف درا يو ما سبورت السنغال ناسيونال انا انا وانا دوم سيسو سنغال نينا انا وانا سيسو سيسو دينا على سيس سيسو مان ما سيس لا سيسو مان Eh, dëkkoo Sénégal war a soogi nga dëkk waaw war a soogi du Sénégal war a soogi war a soogi wala Sénégal war a soogi Sénégal Matam lan la Matam la waaw yow yow yow waa lii xam ma rek ne ma kii kii xam naa ko merci de la demande avion question si yéex yi ma xam si wusasew nel ben ay len looy re wuy sama de nit ñaa ko si barke borom daaw yaay boo sa njëkkew toon ma rus billahi wallahi xam naa Moussa Sow bokkam rek wallahi lazim ay len seeri sam yaa naa Moussa Sow yaa waay ñama ne Moussa Sow kañ Moussa Sow yaa naa dee Moussa Sow kañ lañ ko fi jële xaw ma ko waaye xam naa ko yaa daal kan laa xam si joueur Sénégal nga wax xam naa Moussa Sow xam naa ko wax si yow Balde tamit xam naa ko dégg nga xeeti pël ba tey Jawa Baldé musa Sow Gana Gueye Moussa Sow kay Gana Gueye Gana Gueye pël xam nga doon da nga ne joueur nga wax joueur Sénégal yow kan ah, ah, ah, nga kan xam si Sénégal yow xam nga je suis sénégalais de moi je suis pire sénégalais moi dara te Sénégal man bu bali takkoon bu bali takkoon bu ma neexee yam yaraax gi waaw bañ koo jël bu bali takkoon nga paas waaw bu ma neexee dem ba Papa Garas bu ma neexee eh, kii waaw su ma neexee démb su ma neexee démb maa xam man. waaw da nga may déglu. waaw kontaan naa si yow. nii nga def je suis content. am. problème waaw. réseaux sociaux la ba ma réseau saa. réseaux sociaux. réseaux sociaux. waaw réseaux sociaux. booy euh, sunu jàmbaar ji booy bu yaru du football. Kalidou Koulibaly. ari nan ñu ñaf ah Kalidou Koulibaly. ah ko bar booy Koulibaly du ñu ngi naan ñu ngi naan vaar vaar dafa baax waaye baaxul. vaar baax saa yu su di wër vaar bi bi ñu suñu neexee ñu ne. Eh, vaar baaxul parce que vaar bi gis nga gars yi. Ah. billaahi barke borom Daaru Njaay day toog di naan ataaya ba max bi commencé. waaw waaw gis waa ji day taxaw di woote. Ah, eh, eh. si ataaja la nee ne mooy mooy yooyu gaasu gaasu kuuraay gaasu kuuraay ndaw merci yooyu la gis naa ko Koulibaly day fubal de day fubal force day fubal wala moom nañu si match bi yàlla bu mu am sax yàlla bu mu am yàlla bu mu am final yàlla bu mu am fekk Koulibaly du fubal wax jàmm Koulibaly wax jàmm Koulibaly rente ba dem final nga match bi yàlla fubalee sax Algérie Sénégal su fubalee ak Algérie te Koulibaly fubal sax damay tiit waxuma la nas su Koulibaly fubalul kay fi ne nii kay man daal ministre bi daal nee na dina jël ab avion yóbbu gaay ñu supporté gaay ndey. léegi nañ nañ yóbbaale Lac de Guiers. wax nga dëgg. ñëpp ne war Lac de Guiers wane défenseur. waaw Lac de Guiers nañ ko yóbbaale mu nekk défenseur. waaw ca Lac de Guiers buy dem ñaan naa ko len waaw waaw na yóbbaale xar nga fuufa. waaw waaw parce que naar bëggut ga gàllaaj. waaw waaw ñamawut ñamawut. combat am Gris Bordeaux la yóbbu woon wàcce final bi. gaa yi teg ko si kaay waaw waaw waxuma la Koulibaly waaye gis Koulibaly laa dëggee leen man si kaay billaay na si moom booy de oh, waaw ak bu ña ah, ak bi kere kere pe kere chrétien jaata chrétien chrétien wala chrétien de kooku tuddul chrétien de bu ko kere pe kere chrétien jaata la tudd. waaw. chrétien la tudd boobu tuddul chrétien. chrétien la tudd. waaw damay match bi tey barke Rasulullah mun a fexe bay tey tey match bi mun a fexe Sénégal ba du dóor ah, waaw waaw amiin waay. waaw. day dóor gàncax kontaan naa si yow. mi kata sport bi kata sport na kata sport bi. Casa Sport xaw ma Casa Sport. waaw su ñuy dem dégg naa dem yóbbu leen supporter su ñuy dem barke Rasulullah damaa bëgg ñu yóbbaale euh, mystique. waaw teg ko Sadio Mané comme bu Casa la mu dugal ko si dàll yi. waaw waaw waaw. Mahrez nañ ko kii Mahrez am nañ tur yaayam ak papaam. ak ak turam yi Mahrez woo naa Jamil Fall wooteel na ma. am na turam yaayam ak papaam moom na seen xol sedd moom. da ngeen di tur yaayam ak papaam moom biir buy daw moom moom chaque maximum. oui na seen xol 10 minutes yu ne biir bi dina daw. Marquez moom na seen xol sedd. Mahrez Mahrez du Marquez. Mahrez waaw. Idrissa Gana Gueye kontaan na. ah waay Mbaye ay waay Mbaye Niang Mbaye Mbaye Niang li ngay daan ndax yaa ko tey. Mbaye Niang di Mbaye Diagne ngay wax Mbaye Diagne Mbaye Diagne waa Mbaye Diagne. waaw mooy. a fit kooku te xamul dara. sa jabar sa jabar de ñee naa ko am na fit waaye. daanu rek daanu rek boo xam ne daanu daanu ba kañ. sa jabar kay yërëm nañ. ak booy bi la booy gasam ay nay libéré sun bale gasama. ay gasama am na bul wax dara gasama di. gasama limité bal bee bare gasama moo tane moom euh, kii euh, euh, Mbaye Diagne moom. billaay wallaay gasama moom am na fi day dóor bal. munul munul football sax waaye day dóor bal. ari seere sama xol sedd na. barke Rasulullah na bal yi sec. waaw Sadio Mané bàyyi pilaat yi ngay lase yow. Sadio Mané wax na ma ak moom wax na ma ak moom wax na ma ak moom. Liverpool musoo rere penalty. baal loolu nag Sénégal na xamul lii. lii baal loolu bàyyiwuma ko baal loolu bàyyiwuma ko. gis nga nag yi war a soogee ak nag yi Fuuta bokkul. bokkul dëggal ma naan nag yi eh, Ndar ak war a soogee. benn la laa wax benn la. waaw Sadio Mané baal penalty ñu ngay rete. man man maa baal booy bi. baal booy bi ñun ñoo leen yóbbu suñu xaalis la ñuy. ñu lay ñaax ginaar yi ñuy lekkee foofu suñu xaalis la. wana suñu xaalis la. Dakar suñu xaalis la Sénégalais yi la xaalisu Sénégal la man de man bala bëgg dee rek mu def boppam Sénégalais man man man loolu rek ma métti. kaalis Sénégal la. Ah? waaye déglu ñu waay Sadio Mané muy nekk boobu ah, def de. dootul rate. mel ni daal ku ñu tàgg sa tànk na sa xol sedd. ñu naan ay fonto fonto am. fonto am Aliou Cissé nag moom Aliou Cissé nag moom li la Macky Sall dig jar na ren. wallaay wallaay jar na ko la coupe gaaw rek. ah Ben! Murtania. Murtania. Tuh. Ya na ko de parce que kum kaale gis ko non rek mais war war war. Manam Aida Kumba dem tebi mortel. Ko jenn sam rew. Wadu wayam bi mom mo wayam. Bal nari. Dama lay jox waaw eh, exemple bal nari. bal naari. Awé bal naari ci yalla tax naari. Naaru algeri lañu wax nari. rasulullah naaru algeri. Waaw. Di len tek tank nak naar ba gudd deret deg len ngëm bëkk. bal de corps reer am nga jekki jekk rek ñaf ko sim sànnaar sab loxo jekki-jekki rek ni ko ragg continue continue continue ah y a pas de problème c'est Sénégal fout ah, la <laughs> c'est de la c'est de la c'est la c'est de la man match bi bu commencé man dugaluñu rek comme que tupp sim nen barke borom daa Salam alaikum. am Waouh, waouh, waouh mbéj na sa sedd na Zarif tout de suite tout de suite Zarif Wow, wow, waouh, wow, wow. Ciao, ciao. waaw lan la kujjee ay yàlla ñëw na ay waay kun ma eh. la part, la yow kese wane ñun la waaw Ndakaaru Mortane ak Saint-Louis. Eh. ba gaara sama eh, dëkk. Eh, wuy ma laa wax la wax wala ñun yaa am nga passeport wala amoo ko. yi dañ lay yóbbaale. port wala wala wana port bi da. passeport. yi pour mën a dem supporter ji gaynde ya duudu ma ndej moo woo ndej soppay sëñ Babacar. ah dégg nga waaw ah. ni ma ana man ko may man ma ñëwal nga si porté ji gaynde ndax sonn nan da ngay dem ndax eh, maa la ko wax tey yow dem maa sa yoon wax returin maa la ko wax sama permis sama passeport ay ay ay jamaale waay les waay parce eh. que rasulillah